waaw aousubillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw ba nu ñëwee di leen siyaare noo ngi leen di nuyu kenn ku nekk turam ak santam fu fi ab sénégalais mën a nekk ci àddina moo xam ci biir réew mi la moo xam bitim réew fas yéene ñëw ànd ak yéen tuuti rek ci taxaw seetlu ci sunu gis-gis ci réew mi nga xam ne mooy réewum senegal nga xam ne moom la ñuy wax la pays de la teranga teranga yàgg na fi lool ak jàmm te mel na ne it sant nañ yàlla bu baax ci bi nga xamee ne diine lislaam am na fi doole ba wax nañ ne li ëpp ci ñiy dund ci biir senegal majorité bi ay musulman lañ waaye ñoo sunu mbokki chrétien yi ñoo fi bokk nekk waaye mosuñu am jafe-jafe ci dundin wi ci dara mu yàgg lool nag mu mel ne bi ñu amee indépendance ak léegi am nañ fi ñeenti président président bu nekkit nag dañ la fal ci ay carte démocratement amul problème amul benn jafe-jafe ba ci kii fi nekk tey nga xam ne ñu ngi wax sax après indépendance la juddu nga xam ne mu ngi ci premier mandat waaye liñ mën a am gis-gis ci réew mi rek te sañ cee wax mooy dafa am benn loi bu ma dégg ñu wax ne moom lañ fi bëgg a tëral. copier ko ci européens yi te européens yi ñu ko copier meluñu ne ñoom ci dara waaw suñu réew nuroowut ak seeni réew ci wàllu li nga xam ne moom mooy tax am réew bu mën a neex mën a baax ña fa nekk mën a dund ci dund gu teey ci dund gu baax ba tax na sax looloo tax ñu gàddaay suñu réew dem fekk leen kon jàpp naa ne loi boobu laata ñu koy dugal ci biir réew mi di ko copier ci tubaab yi waroon nañu copier waale it na tubaab yi di doxee ci seen réew ca la nga xamante ne si moo tax seen réew mel noona waaye waruñu ci jël benn point rek dikk ne dama koy investir ci sunu réew loolu dafa mel ne kon euh, la muy jur rek mooy jafe-jafe rek lay yokk waaye mënut a saafara dara ci wàllu transport. ndax fan yëpp yéen a ngi dégg coow li bari ñu naan accident yi bari na accident yi bari na ñii faatu bari na ñii balise bari na waaw d'accord loolu moom am na waaye nag lenn lu ci ne it dañuy xool gannaaw ba yàlla wiyee lak lan moo ko sabab waa léegi loolu bu fekkee jël nañ ko ne jiiñ ko ki nga xam ne mooy safoor bi kese loolu day yomb ba mu ëpp day yomb lool ba mu ëpp te safoor bi kese nekkul ci tëri bi chauffeur bi kese nekkul ci oto bi chauffeur bi këréewul oto bi chauffeur bi entretien bi war ci oto bi chauffeur bi defu ko lenn loo ci ne dafa am fu koy wute ci bu dee carte grise xam na ñi koy ñi koy joxe bu dee visite technique xam na ñan ñoo koy def bu dee assurance xam nañ ñoo koy def bu dee circulation xam nañ ñan ñoo ko yore waaye léegi chauffeur bi moom di dawal moom kese ñu jël yooyu yépp sëf ko ko ci kawam muy sanction yu diis yoo xam ne réewi tubaab yi ñu ko copier dafa am loo xam ne ñoom dañ koo def ba noppi door a jël sanction yooyu mu jëkku te sévérewul comme ni ñu ko bëgg a sévérer la ndax benn tubaab yi ma onante yu baax am nañ ay national am nañ ay autoroute am ay panneau signalisation oto bi day am nekk ci étape bu baax doo ca def mukk loo xam ne nekk nii dafay waral buñ la tëyee nga am ci jafe-jafe oto bi kenn ko si sas seen transport dañ koo teg ci norme yu leer nañ léegi nag ba yooyu yëpp matee ci côté état ak i citoyen lañ jël nag seeni mesures nag door ko jëmee ci kaw chauffeur si nga xam ne la am na ci lool ñu indiscipliné rek ñoom ñoo koy def nga xam ne ci wàllu réewande walla fuñ la wax ni la boo fa accès defal ndànk nga ñàkk ko respecté ba loola da ci am moo tax ñu indi seen permis en point mais la ko jiitu ñoom lañu war a def def nañ ko wut nañ seen i policier wut seen i gendarmerie teg leen ñoom tamit ñuy xool intérêt réew mi ndax la leen réew mi warlu loolu lépp def nañ ko ba tax na ñoo ñooñu bokkuñu ci ñuy laaj ay neexal bokkuñu ci ñuy duuralaate bokkuñu ci ñuy taqalaate suñ la woo laaj la oto bi nekk ci condition yu baax dañ lay bàyyi nga dem sa yoon su ca nekkul ñu bindal la kayit ne la demal nga fay nangam te dem defar sa oto nangam door a mën a dawaat su dul loolu buñ la jàppaatee da nga da indi sa bopp jafe-jafe loolu da nga fi jaar ak tubaab yi. waaw lan moo tax nag léegi loolu ruy ñu ci tubaab bi daal di bëgg a xëy xëy xëy bëgg seet la leen arrangé gën leen noppal te jàpp na mooy indi accident bi ñu di ko def.